chantier kër xaside yi dajalewaat na mbooloo mu takku ci suba talaata ji fukki fan ñetti octobre atum 2020 muy jéego bu am solo bu ci dolliku di liggéeyu sëkk boo xam ne mbooleem engins yi ak machines yi ànd nañ ci waaye itam mbooloo mu takku ànd nañ ci muy liggéey boo xam ne fii ñu toll am na solo lool bu ñu sukkandikoo ci kàddu jëriñu daara Hizbut Tarqiyyah Serigne Atou Diagne mi dikkal boppam di seet si liggéey bi étape la boo xam ne bu am maanaa la ndax euh, dafa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 di ko teg ci kaw loolu nag li muy laaj ci accompagnement ci euh, unité yi ko wër ci la ñu nekk. lu bokkul ak ouvrier yi nga xam ni naka jekk ñoo fi baaxoo liggéey ay membre daara Hizbut Tarqiyyah yu bàyyi ko ci Touba ba ci yeneen daara yi yu mel ni Ndakaaru teew nañ ci muy nag liggéey bu am solo boo xam ne koo ci gis.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 damay wax ni képp koo xam ne ki nii yàlla dimbali na nga tukki ba ñëw ba ñëw da ngaa war a ñëw jaral la nga ñëw barkeelu ci ndax xamoo di nga fekke suba wala di nga fekke déwén nan yeesalaat suñ pas-pas yëkkatiwaat suñu ite kenn bañ a dese dara liggéey yëpp sëñ Tuubaa bi jaral nu lépp ndax xam na ne bis ba àggee sotti aaju yëpp dana gën a faju muy chantier boo xam ne juróomi weer rek ginnaaw bi ñu ko tàmbalee ak léegi liggéey ci am solo jot nañu ko daaneel lu mel ni souterrain bi war tàmbali nag sëkk bi ba mën a teg alvéole muy dal yi nga xam ne dana mën a may ñu tabax mu jëm kaw di fàttali ne liggéeyu këru xaside yi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des mourides moo ko santoon daara Hizbut Tarqiyyah ci biir complexe Cheikh Ahmadoul Khadim